TMS TV. ma ni bii 11 pro max bi may dégg la wala ban la di. 11 hmm, ñeenti bët yi xaw ma. dal la eh, dal nga si de. doon na fi jar ay 1 million et quelque de. 1 million mhm, ay 1 million 48 mille je sais pas. dina dina baa ngi wax ci téléphone bi waa SMBG Moulé. Euh, macha li may filmer sama téléphone yi day bari giga bi bariwul bii nag euh, cinq cent douze giga ba pare ñu aboneel ma deux tera xanaa lii mooy Thierno filmel ba génn télé waaw SMBG dañoo mer de dañoo mer waaw waaw ñu ne Thierno filmel ba génn télé gis nga téléphone baa ngi nii un million lu teg lay jar un million trois cent mille wala cinq cent mille mu indil ko mu Moule jinne bi wax na ko xam nga jinne bi moo njëkk a tudd lii xam nga ne borom ki indi téléphone bi raw nga de su ma benn xarit su ma benn taalibe macha allah bëgg ma lool nag ma bëgg ko lool nag moo defati lii def nga sa jikku saa su ne moom mu def jikkoom gis nga calculer li jamono ji bii moo xew de ah kii kay moo ñaa yow sax yaa koy ñaanal d'abord <laughs> dégg li moo tax li ma doon wax sànq. waaw gën a siiw jàmma or loo bëgg nga bàyyi ma si moom si xale bi ma jox la ko xool dama naan nii rek. nga jox ma ko. lépp ñëw maa la ko wax. nga ne su ma bëggee or su ma bëggee jama su ma bëggee pouvoir lu ma bëgg nga jox ma ko ngir ma bàyyi la xale bi. Mm. bàyyi ak moom rek yow. mbokk yi gis ngeen jinne yi dañu may jéem baab. pour lan ngir ma bàyyi ko ak xale bu jigéen bi ngir mu jël alalam jël. nga ne. bàyyi leen siisu bi dee leen nanguwaay ah. nga ne wax na leen ko. kaay sëriñ bi kaay laaj ko. waaw waaw maa ngi jégalu waaw euh, sëñ bi yaakaar naa ne dégg nga li ci ne wax sëñ bi léegi nee na pouvoir or ak ak jamaa lépp mi ngay moom ak siiw. démb daf la ko waxoon effectivement démb wax na ma loolu yëpp ne ma bëgg boo leen or wala jamaa wala siiw ma defal leen ko ngeen bàyyi ma xale bi. Hmm. ma ne ko soxlawu ñun suñu doom moo ñu gënal ma ne ko nag da ngay jaay dëgër bopp comme que li nga moomul nga gën a bëgg nit ñi ki ko moom tey la ñuy xam ak yow léegi bi mu rëccalee nag ba wax lee parfois tamit wax dëgg yàlla da ngay set Euh, ndey ju liggéey rek parce que vraiment suñu yaay lu nekk daj na ko ci kër gi man leer na ma ni am naa yàqin ne lii day dañ par force ti li wax nañ sax ma wax ko ma ne ko da ngay sonal sa bopp rek mais man su ma si jógee parce que man sax maa njëkk ko yëgal sama bopp ne dëddale bi dama toog ni action bi ni mu demee la quoi dañ toog ni di euh, di añ maag moom ma ñëw toog rek mu tibb ñaari tugg rek bëgg jóg ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko kañ ngay pare mu ne ma jeudi dégg nga mu ne ma jeudi ma ne ko jeudi boo paree nga ñëw am na garab bu ma la war a sang rek mu wane ginnaaw dem mu dem dugg si biir kër gi toog mu dugg si biir néeg bi toog fa dégg nga mu dugg si biir néeg bi toog ma ma pare lekk ba pare di romb rek dégg bruit ma këdd bunt bi dugg rek téye ko xam nga mais moo ko téye noonu ba ma ko téye ak par bi ma ko war a sang mu réagir noonu bi ñu toogee di ko téye sama ñoom yaay toog man leen kii maa ngi soog comprendre la moom ma dëddaleeg moom parce que bi nekk xale maa moom nu ne lañ mënoon nu ne doo jàpp ni sax da ngay ni sax mooy suñu caat mais bu dem ba màgg affaire dañ ma analyser wax ji ma ko wax ak affaire bi ni mu ko jàppee subitement ma ne lii dafa am lu ñuy dëddale ko li may dëddaleeg moom léegi ma ne ma ne sama yaay d'ailleurs sax décidé naa li affaire bi day deñ sama yaay dama kon yéex nga décidé. ma yéeg ci kaw wàccaat bi sama xel dem ci garab boobu noonu bi mu ko tuuree mu des tuuti ma jël ko remplir ko ñëw sang ko ko. ñu teg alxuraan bi sóoratu jinne boobu rek mu commencé di wax. léegi nag bi mu waxee si la dévoilé bi xamul sax lu ko wax loo wax na ba génn kaye bi kaye bi bu ñu jël beneen kaye mu ne du bii seet leen beneen kaye bi ñu dem génn kaye boobu ma tijji rek gis ñetti numéro gisuma si tour certes mais moom moo waxal boppam ne keroog lëddi dafa ñëw seetaan ay vidéo ne xaar ma bind jox ko sama maam ndax mu yóbbu ñu fii mu yóbbu ma fi rek mu commencé ko dóor mu génn affaire bi ñëw wan ma ko ba ma ko wanee rek ma yëkkati téléphone woote ma woote bi jàllul mu sonné ba dem coupé ma woote Tigo jàllul ma woote fixe bi laa jot sa mu expliqué ma lool. noonu la demee. Mhm. waaw mais yow amoo tamit euh, ku jinne bi mu ngi waxtaan ak sëñ bi te yaakaar naa acte bi nga ci am xëy na mosu ko ci am amoo lenn loo ko bëgg laaj moom jinne bi nii wala lenn loo ko bëgg a wax. li ma ko bëgg wax li ma ko bëgg mooy na kiite booy bi rek na ko kiite rek man moom amul leneen na ko kiite rek parce que sama doom la te sonn naa ci moom te ñu liggéeyuñu loo xamante ne mën nañu ko yàqal man loolu leer na ma sunu maam liggéeyu ko sunu yaay liggéeyu ko. boog mhm. dafa leer nañ day dañ par force mu neex ko mu naqari ko démb wax naa ko mu dégg waaw dinaa xool. Hmm. Hmm. dégg nga <laughs> dégg naa ko. dégg naa ko waaye. te mbokk yi liggéey li ci gën a yéeme yéen ñi bàyyi xel TMS TV papa ak doom ñoom ñooy wax waaye nag tey papa waxut ak doom jinne lay waxal dégg nga li muy wax papa ji mu ni la sa xol moo ci. dina denc loolu moom day sonal xol mu ngi nii. waaye jaa ngi nii bàyyi ko rek. ne ko bàyyi naa ak sëñ waaw kon jeex na. léegi est que du ma wax ñu yëkkati ko mu toog. mu toog waaw mën a leen bloqué moom na jóg. moulin yi léegi bloqué leen foofu léegi na jóg na jóg toog jinne yi na jóg toog wax jóg na jóg toog jóg jóg jóg jóg jóg jinna jinna jóg aha ok na toog noonu waa gis ngeen ndeysaan portable baa ngi noonu am ma jox la ko teel waa SMBG waa SMBG ndeysaan seen directeur bi macha allah moom moo def li ah, comme téléphone yi la yor. Mhm. Mhm. ay bokkul ak ah, comme téléphone yii la yor ah, déggoo bii la teg man maa la ko wax. gis ngeen waa SMBZ. ah kii de moom jommi na léegi nag. ruq yépp waaw ruq yëpp laa xam Macky bi la ñor laaj leen seen ordinateur yi sax ordinateur lan lañ koy tuddee Macbook wesh c'est ça. c'est kii xam na kër gi. pardon. ah kër bàjjanam la. dégg ngeen Guinée bi lu mu wax. gis ngeen moo ngi ci portable bi waa SMBC Moulé tey ñoo def lii lu ci gën a yéem nag. goldu goldu bi la ñu waxoon lañ may indil après goldu bi amul mu ne ma sëriñ bi ah goldu bi amul de bu xaw a weex bi moo am ma ne ko non garaawul lu yàlla di def rek gis nga goldu bi am mooy li ma leen waxoon sànq fi lu nekk sama xel rek rek mu ñëw gis nga goldu bi ñëw kon gis ngeen ne yëkkati lu mel ni jox ko kilifa lu baax la bu la ñaanalee rek ñaan bi day dal waaw dama koy ñaanal nga ñaanal ko gis nga xam nga amin nga ne. yàlla musal ko si cat ak yu bon. ak ay rab yu bon yooyu. amiin temps yi xam nga rab dañoo bari nag de. Ah, rab yi dañoo bari. dañoo xale bi koñ bi mu nekk noonu. dafa bari ay rab. Ah. Mhm. léegi. Hmm. bi. traversé foofu noonu di jóge si dex bi. rab bu ah, ay 3 mhm. heures yooyu parfois sax gis nga studio boobu côté boobu hmm. day am ay choc. rab bi bu yëngoo. Hmm. foofu nag def descendre jàpp rab bi. boobu hmm. xool buy jug ay 3 heures yooyu. di doxantu ah, ah du matin di doxantu moytu romb bu romb de ndax yaw bay romb doo ko gis boo nekkee nit doo ko gis da romb ngeen tase da koy laal nii rek. mën nga ko sax bañ a tas mu xool la rek ndax dafa soxal ne la ca wax dugg di laa def loolu ko neex mën na sax daf lay sax rey. ndax deret da koy dundal. yow rab boobu ku gën a soxor. yii kooku tamit soxoree dafa ëpp. Hmm. dafa ëpp de rab boobu noonu noonu noonu soxoree dafa ëpp. xam nga tur rab boobu noonu. yow doo bàyyi waxi tur yow tamit. yow waxuma jàpp ji te julli. nga julli waxtu yàlla bi danga koy danga koy fonk de. mbaar yaa ngi julli yow mi wax nay julli ji na yow yaa ngi julli. man non non. xale bi xoolal dama koy dama koy bàyyi ba mu jàpp nag ma génnee si xel bi julli bi yow <laughs> mu dem ba classe nag toog di doore mu ne waaw man kon man tey julliwu ma di ki mu dendal na ko yow moom dangaa ràqaaju ki toog noonu si kanam man Njaay Balde na ko yow moom dangaa ràqaaju yow yow yow danga ràqaaju de mu ne ko soo yoon na seen nekku sax yow léegi wax dina jeex kooku su ko defee doy tourné moom fekk na yow yaa ko teree julli mbokk yi lii dafa garaaw gis ngeen jinne bi wax na développé na fi indi na lu bari. moom moom si jukkoom personnel xol bi rafet na jullite na dafa moom day tegle di julli di julli ba ma ne waaye ci xol sax mi ngi may bëgg a soox ma tere ko julli bi bu jàppoon ba pare wala mu jël xel bi def si leneen wala parent saa maam ni ko yow moom yow ginne doo julli del muur sa bopp bi booy génn ginne damooy jéppi maam ci di ko naan yow sa bopp bi booy génn yaa ngi dem ba centre ba ah di jàng ji léegi yow eh. nga toog te noppi donc dem ba centre ba la jàngi timis bu la fekkee si yoon bi nag muural sa bopp bi jëlal kol bi léegi xale yi sax dañuy muur dañuy civiliser bokk cee julliti gis ngeen euh, léegi ñaanalal sama taalibe bi indi portable bi euh, euh, kii la iPhone iPhone 11 Pro Max AirPods waaye avec connecteur bon indi portable bi. waa dinaa ko ñaanal loolu moom bul wax dara dinaa ko ñaanal man instant bi danga may jàppale ma xam sama tur bi lanati la xamatuma sama tur fàtte naa ko xamatuma sax noonu laa defoon bu gisee sama photo la fa mémoire bi la dem ba mu jàkkaarloog man photo bi rek mémoire bi dem na turam fàtte na ko fu mu nekk nii yàlla may na de yàlla may na la moo tax xale bi keroog bu ba mu sobee nag bay jaay dooj dooj bi ak intellectuel bi nag jël big bi noonu di ñor di di bind numéro ba jëlu big sax dafa jël crayon nag di ñor di jël temps bind numéro bi bind 77 bi 76 bi 33 bi fekk xam nga ban la doon seetaan ambassade Iblis mhm. première ambassade boobu la doon seetaan yeggali ko sax ma def le tout ba mu tëj ba mu teg nal ordinateur bi après xoolal mu teg ko noonu ay côté timis yooyu noonu ba muy waaj a jot c'était un lundi wesh xoolal mu doom raqam bu góor boobu moom saa bu daan rek moo raq bu góor boobu noonu dinañ xulloo aaru na mhm. ñoom ñaar dinañ xuloo ma kooku kooku ne ko yow sa voix bi sax dafa changé mu ne ko kan moo la wax sama voix dafa changé instant boobu man maa doon wax ak ñoom de xale bi waxatul instant boobu yooyu yëpp man maa doon wax ak ñoom ma demee taxaw si waañ bi xale bi yor paaka bi di def nii di foo mu jàkkaarloo ku xees ki Aysata mu naan ko jamal jamal mu fexe fexe forcé forcé ba teg paaka bi mu ne kii moom dafa soof mu génn loolu yëpp moom mu ngi taxaw rek si waañ mu génn dem dem ba si saal bi xool fekk fa maam bi mu ngi setaan télé mun ko yow doo dóor kii nga xoj kii yow lan la sa maam bi dafa lakkale torop fii lay nekk diwoo sa bàjjen di la clame di woo sa papa naan ko ki ne day taxawaalu ki ne day def lii ki ne fii lay toog ba timis ki ne day topp ñoom xaritam bi xaritam bi xaritam bi ñoom toog effectivement kooku nag sali boobu noonu boo ko gisee da naan kii xale bi dafa sikk wala dafa def lii tam dafa baax de. Mhm, dafa baax soose la sax. Mm. Mhm, dafa baax sax. léegi bi nga dugg ñaata at la am kii. kii ma xool mm. octobre la am 18 ans wesh. Mhm. octobre la am 18 ans. mais boo gisee da yaakaar ne ko am 16 ans 14 ans. waaw loolu ngay yaakaar. lan moo waral loolu. loolu ngay yaakaar parce que dama ko sonal. Mhm. Mhm. dama koy teree màgg tamit. yaa ko teree màgg nu mu war a màggee dëgg yaa ko ko tere. parce que xale bi ah dafa rafet. rafet dafa rafet macha allah am forme mhm. léegi xoola de am góor yu bari dañ koy topp am na góor boo xam ne ñu ko topp xoola quatre ans kooku day football day football ñu ko topp mën na quatre ans chaque jour muy wax xale bu xoola xam nga lan la ko wax yow li ngay wax yéen góor ñi yéen ñëpp am fen rek ngeen def effectivement góor ñi léegi dañuy fen rek dañuy taxaw ni kii laa bëgg dem def si kenn kii laa bëgg eh. wax ko juróom-ñaari nit góor yëpp nag du góor ñëpp de. baax nag bariwuñu de. nañ waxante rek. du góor yëpp nag ñi ci baax bariwuñu ñi ci baax bariwuñu waaye du ñëpp am na góor yu sérieux góor yu bëgg seen jabar di toppatoo seen i jabar di leen defal comme suma suma taalibe bi bëgg na soxnaam di toppatoo njabootam macha allah ku mel ni mu Moule aussi bëgg na jabootam bëgg na jabaram ak ñeneen ñu baax waaye nag du ñëpp ñoo bon aussi loolu tamit c'est important am na góor ñu baax ñi nga xamante ne macha allah. xam nañ valeur jigéen am nañ yërmande boo leen sëyalee dañ lay toppatoo normal la di la yóbbu ci ay cliniques yi cher di la ma ne barki Dembo Ndiaye rek am na benn jinne bu ñu yebal ci clinique waaw <laughs> ah, jinne lu garaaw sax benn jinne moo <laughs> mu ne ma naa yóbbu sama jabar foofu clinique boobu <laughs> affaire bu garaaw sax billaay wallaay talaay am na seede dégg nga ñoom ñoom dañu dem fépp. ñoom dañu dem fépp suñu neexee dañuy nekk nit. ñëw mën mën nañ nekk nit comme nit yi ñu dee dee lu neexee ñu mel nu ñu neex ñun daal ñu neex def. lu leen neex la ñuy def yàlla moo leen ko may bu leen neexee ñu nekk nit ànd ak ñun te duñ leen xam bu leen neexee nekk lu leen neex ñii nag pour ñu xam leen day jafe pour nga comprendre leen. <laughs> du yomb waaye nag léegi man yee naa leen yee naa ñu bari léegi yow boo nekkee ku jinne jàpp sax yow da ngay comprendre parce que dinay def ay gestes di nga xam ne ah lii kat laa doon seetaan ci video vidéo Thierno Moule dana la yee moo tax c'est important vidéo yi ñu koy seetaan ndax moo ngi yee ñi bu baax a baax moom tey lu mu doon seetaan vidéo yi loolu moo ko dimbali mu jël mu jël numéro bi denc ba mu tàngee ba tàng numéro boobu noonu lañ topp ñëw ba ci kër gi. te yóbbu nañ ko fu yóbbu nañ ko ci ay sëriñ waaye dara waaw léegi yow ak lan aussi nga mosa yàqal xale bu jigéen bi. njàngam yàqal naa ko muy redoubler di redoubler di redoubler te di redoubler di redoubler ak ndeysaan ñu koy xas quatrième bi dama ko defloo trois fois. quatrième defloo trois fois. trois fois te xool professeur yëpp daj naan ci nii elle est intelligente. intelligent. xale bi laay waxal. léegi yow lan nga mën sa àdduna yow lan nga gën a mën. Ah? Hmm? lan nga mën ban yow exemple loo mën. mën mën naa dugg si xolu jàmbur yi di jaxase. dugg xolu jàmbur di jaxase. waaw ak lan. di nit yi yooyu yëpp mën naa ko. Hmm. ak lan. man biir énervé ndax leen xale bi. suñu doom la dafa bëgg seetaan. na kumpa de si xale. seetaan tàmm seetaan yóbbee <laughs> a seetaan tontu nag salut <laughs> wax am na lu jafe doon xale di gis jiney yi di la bëgg macha allah yàlla guddal fanam baayam amul woon lii de léegi yow euh, da nga mën a yàq dugg ci xolu xale yi maanaam dugg ci xol yi di yàq ak lan nga gën a mën sa àdduna loo gën a mën. ma gën a gën a gën a mën. mooy jaxase bi ma la wax ah, damay jaxase te xolal sans kenn du xam man maa fa aw. Ah, da kenn du xam yaa mm. yàq kenn du xam yaa fa aw. dañ koy di nit yi rek. kenn du xam kenn du xam man maa fa aw. est-ce que yow tey bu ma la boolee kenn ma ne la kii dama bëgg nga def ko milliardaire est-ce que di ko def. waaw dinaa ko def. mën nga loolu. Mhm. dinaa ko def kay. Mm-hmm. du moo tax ma waxoon ñuy démb ma jox leen xaalis pouvoir jamono ñu soxla ñoom ñuy siiso mais ñoom seen diggante ak yàlla rek nañu wax rek nañu wax ba xam soxlawuñu xaalis seen diggante rek ak yàlla ñu rus yàlla ñu wax. dëgg soxla nañ ko waaye seen doom moo leen gën a ñor soxla nañ xaalis bu bari waaye seen doom moo leen gën a ñor. depuis ba mu nekkee seen doom dafa yàgg man xamatuma sax dafa yàgg lool. ñoom ñoom mosuñu ko xam ñu bàyyi bu léegi di doore di doore nekk di wax may wax nag kii ba ba mu daan woo woon vendredi bi ñu wax ko papa mu naan waaw seen kawut yi ñuy affaire lu jantal moom si papaam lu jantal waaw di def comme la seen kawut yi ñuy sol naaj bi bu tàngee soutien kawut si la lii kawut ci la ñuy daanu naan ni hen fekk na du loolu boobu ñun rab yi dañ doon wootante suñ biir xoola xam nga xale bi moom dafa sob moom tamit kenn raw ko dafa sob moom intelligence am lu mu gis rek da koy découvrir xool lan moo nekk derrière loolu noonu du teel a réagir day def ndànk par ndànk te en général kinne yi nag dañuy yeewu de. kinne yi ñu tudd kinne yi dañuy yeewu. ah il daal dañuy yeewu moom ki ko tuddee sax dafa muus de dafa intelligente de macha allah kooku tamit. macha mbokku julliti mbokku taalibe yi dégg ngeen lu jinne bi wax macha allah proposé na papay xale ji ay milliards proposé na ko or diamant pétrole pouvoir pour mu bàyyi ko ak doomam bi mais papa ji nee na suma doom laa bëgg macha allah xam nga doom dafa foor dafa foor du du du dara moo ko mën a jënd du dara mënuñu ko weccoog dara léegi léegi nii am na ku ma woo suy dan la nekk dafa am jafe-jafe mu dem Gàmbi nee na Gàmbi la demoon ci benn sëriñ sëriñ bi ne ko dinaa la defal pour nga am alal mais dinaa def ci ndaal bi benn affaire jox la paaka su ma la joxee paaka soo jamee di nga gis kanam boo jam ndaal bi dina fees deret te wax na ko moom préparé na loolu ndekete waxu ko waa ji dinaa la transférer audio yi waaw léegi waa ji jël paaka la wax mu ne mu jël paaka bi euh, mu ne ko jamal fii mais boo jamee di nga gis kanam kanam boo xam waa ji jël paaka bi ne non man duma jam duma ma jam bu dee lii la soxlawuma alal bi yaa ngi dégg léegi mu ne ko kon jinne yi dañuy mer kooku ay jinne shayatin la yor jinne shaytaane mu ne ko kon jinne yi dañuy mer léegi nag ndekete ci biir loolu jabaram moo ngi suwet jabaram ci es heure boobu noonu après ba loolu jàllee mu woo jabaram jabaram ne ko ci heure boobu noonu am na fi ma taxawoon paaka bi dafa jóge woon ci kaw nar ma jam barki alxuraanu karim mu ne kon mu explique jabar ji mu ne ko dama dem ci benn sëriñ mu defal ma benn affaire ci benn ndaal mu ne ma naa jam bu ma jamee dinaa gis ki ma xam instant boobu noonu paaka bi xamul fu mu jóge yàlla def na defu ko waaye après paaka bi mbas jabar ji daf ko naroon kii ci kanam barki alxuraan ojo baa ngi fii affaire bu garaaw sax audio bi moo ngi fii sànq sànq la ma woo wax ma ko ma ne ko yónnee ko audio mu yónnee ko audio léegi bu jamoon pour am alal day jam nii rek balaa muy xippi gis jabar ji fekk jabar ji fu mu ne jam na ko boobu jot na ko jinne sacrifice kon c'est grave kooku ay jinne sayaatin la yor jinne yi bon bokkul ak cerno cerno ay jinne yu baax la yor dama leen di tuubal ah ah waaw doole di xojo bi mënul ñàkk parce que noonu la ah. ñu baax war ñu di doore mais ku mel ni yéen bu ñu leen dóorul wax dëgg yàlla doo leen doo leen mën a do bu ñu leen deful lii doo leen wax. ba ma xoolee seetu bi sama bët yi dafa xonk jur sax comprendre ma sax man xoj bi nu mu demee damaa doon xoj sama bopp nag lu ngeen si xamul. loolu parce que instant boobu jinne yi laay liggéeyloo ñoo téye sa loxo di xoj xam nga nit mënul xoj boppam gis ngeen loolu gis nga kooku ay fétis la yor ay maanaam jinne yi nga xamante ne ay yéefar lañu léegi tey bu jamoon loolu jabar ji day dee mu am alal loolu daf koy jàpp sax ba mu dof kon c'est très attention maanaam ñi nga xamante ne dañoo yor ay jinne jinne yi nga xamante ne ay yéefar lañu duñu ay jullit ñooñu bu ñu la def rokku mi rokka la bu ñu la defalee dara da leen di fay loo leen di fay nit sa doom sa jabar sa yaay ki nga gën a bëgg te loolu alal boobu du la jariñ dara waaye ku mel ni Thierno Moule nag jàpp jinne tuubal ko dugal ko ci diine lislaam bàyyiloo ko lépp lu bon mu nekk jullit di jaamu yàlla kooku alal bu la nee bu ma nee jinne bi mayal ma ki alal bu la mayee alal dara du la ci fekk maanaam amul rokki mi rokki amul bor amul dara maanaam dalay may lu set wicc sa wërsëg bi alal boobu mun nga ci dem màkka mun nga ci tabax jumaa mun nga ci tabax euh, jàkka parce que loolu lu set la amul lu tilim parce que ñii dama leen yilif ñu doon ay jullit am na ku sonn wala suma xarit bu ma yéenee ma ne ko fexe leen kii am mu am bu ko defee loolu lu baax la tame parce que jinne yi yàlla may na leen doole may na leen xam-xam may na leen alal te seen alal jëriñu moom soxlawuñ ci dara lu dul ku mel ni Thierno Moule tey ma soxla dara ñu indil ma wala suma xarit ñu jàppale ko kon nañu bàyyi di dem ci ay fétis calculer kooku bu jamoon paaka bi jabaram bi day dee ojo boobu moom dinañ ko lancer nit ñi dégg ko lu garaaw sax léegi nag nee na ba mu jegee foofu dafa tëju léppam dafa dëgër parce que jinne yi mere nañ ko léegi woo na ma nee na ma dafa bëgg a ñëw pour ma dimbali ko kon c'est grave léegi yow xale bu jigéen bi dama bëggoon nga bàyyi ko nga may ko jàmm ak liberté bu ko defee yow nga des fi liggéey doon sama taalibe parce que kii yàq nga avenir am yaa ko teree màgg ku am dix-huit ans waroon na ëpp nii mais yaa ko teree màgg yaa ko yàqal léegi dama bëggoon nga bàyyi ko ci njekk ak teraanga. gënee woon nekk nekk nekk xale. bëggoon nañ ko fi yóbbu France bu mu gënee nañ ko fi yóbbu France. ndax am wërsëg ak sens. Mhm. loolu mais loolu defe naa ne dina jeex tey. am na leneen question boo bëgg ñu laaj ko walla. moom nee na fàtte loolu kañ nga dugg xale bi. gisoo yow yow sa bopp yow yaa yóbbu sama fit bi ba pare nga bëgg ñëw taxaw tamit di ma laaj kañ laa dugg xale bi. bàyyi sa xel bi ngay fawee. nee na maa yóbbu fit bi. yow foo dëkk ci xale bi. man damay nekk ci ginnaaw bi si dogg bi si loos bi. damay nekk si yii si yii waa ci wet yi. Mhm. su ko defee xoolal bu ko kenn nii rek day tëb yuuxu. Ah, loolu day fekk yow lay laal. Mhm. mais yow nan nga mel ban melukaan nga yor. am naa doole de. am nga doole. damay sol sax damay sol sax lu weex taal. da ngay ma taxaw waaw. nga taxaw. kanamam ndax xale bi xoolal maamam seen maam ku siiw a siiw siiw la si côté yaayam. Mm. ku siiw la ñaan sax lañ ko daan woowee. maamam dafa ñaan fay. Mhm. danaa ñaanalaate. Ah, ku mu ñaanal nga wér. moom maamam. Mhm. léegi yow maamam da nga ko xamoon wala da nga doon ànd ak maamam di liggéey wala qu'est-ce danga xamoon maamam wala. xam naa leen ndax ñoom seen côté yaay dañoo am ay tuur ay xàmb yooyu noonu. waaw. Mhm. nekk naa si yaayam. nekk nga ci ah ci yaayam mhm. nekkoon. ma feeñu yaayam si gént. waaw mu ne ma yow lan la yow munoo ma bàyyi ma ne ko su ma la bàyyee damay dem si ku la gën a jege ma dugg si moom. Ah, ba nga bàyyee yaayam nga dem ci doomam bi. daayu leen duma leen may jàmm. parce que affaire yi seen aada la seen cosaan la. maanaam yow ci. ci seen rab yu maam yi nga bokkoon wala. Hmm, waaw si laa bokkoon. yaayam ne ma yaayam naa ko bàyyi. ah yaayam ne moom naa ko naa ko bàyyi. Ah, ma ne ko bàyyi. damay dugg si kuréel gën jege. xale bu jigéen bi est que mës na la gis jaxran. waaw dama koy feeñ si gént. mu koy feeñ ci gént maama boobu noonu ma lay wax tam te mën ñaan ñaan fay kooku noonu feeñ na ko si gént mu ne ko jugal si sa jàng te nga jug si sa bopp si sa jàng te nga jug si sa bopp ba ba muy dem bu mu ko mujjee feeñ si gént daf ni ko dangaa dëggal bopp wax naa ba sonn nga toog fi nga toog mais boobu dama def comme kim nekkaloon bàjjanam bu waxee duñ gëm xale bi te xale bi day gént loo xam ne futur la lu ñëwagul da koy gént koy gis nii di si teg bëtam xale bi gis na sa xola ñuy jox papaam bi ko jur ñu koy jox soow soow bi dafa am liggéey papa di ko naan loolu vérité la jox nañ ko soow bu am liggéey wala. jox nañ ko ba ba mu naan ba mu naan. yow mos nañ la jox soow ah. ah nag jël ko jaarale ko si soow duma wax bëgg nga wax ma turu kooku. ah déedéet yow tam sutura. sutura dara ah, fii a pas de sutura. sutura dafa baax tu vas parler ici. sax yàlla naan boo nit fii nii ma suturaal la si kaw. waaw mais mais mais kuy rey nit wala di liggéey nit kooku dafa jar sutura man de du suturaal kooku. non ya ya waaw waaw waxal rek pour mu xam. def ko def ko lu bon gannaaw jógul pour lu bon waxal rek mu xam kan la c'est important mu mun a. li ma jaaxal papa nu mu ko bëgg a laaj amul ay seex moom mi. waaw. Ah, <laughs> li moo tax bëgguma di wax. tax bëgguma di wax lii moo tax bëgguma di wax mu ne gis nga jinne bi ne moo tax bëgguma di wax ma ne ko mbaar. moo tax bëgguma di wax de. seex yi daal man xaw ma ba xam dañoo dellu xaw ma waaye kii kii nii seex yooyu xaaral parce que dëkkuñu Kaolack. Kaolack bien sûr gis ngeen jinne dafa garaaw gis nga dafa am benn xale bu jigéen bu nekkoon ci kër gi di fi def ay liggéey ma dàq ko léegi nag gaa ah? kon xam nga ne moom la. nee na effectivement am na jabaram bu mu divorcé Kaolack xëy na kooku am na doom waaye waxu ko waaw bu mu divorcé. nu mu tudd laaj ko nu tudd. laaj ko. mu ko jur doomam bu mujj bi. doomam bu mujj moom doomam bu mujj attends il s'appelle Adama. Bien sûr, Adama. Il s'appelle Adama. Wesh, il Adama Gaye. Mhm. Adama Gaye. te kooku yaay mi si kër gi ba tey ñoom ñaar ñi ngi ensemble benn jabaram boobu kese la mu la yàggal si jabar. Ah, lu tax daawul yàgg jabar xanaa dafa am rab moom tamit wala lan. Mm, kii daal mi ngoog rek duma leen wax daal. parce que bëgg bëgguma xaalis surtout am si kanam nit ñi kam sem quand mm-hmm. bëgguma mais su ma leen waxoon exactement kii nii ëpp na daal du wax de parce que yaa mi ngi fii yëgul affaire u seex yi te seex yi nii dama ma leen wax dafa reyal de seex yi daal dafa mel ni dellu nañ mais seex yi dafa reyal dafa reyal lu am la mais wax de jinne dañu naan jinne day fàtte jinne du fàtte de jinne du fàtte dara jinne man nit damay gë ah. ma maanaam. privé. Mhm. c'est que l'on appelle privé. Graoul, comme que bëggul ma dugg ci vie privée bon c'est pas grave je vais pas le forcer pas du tout. il faut pas forcer quelqu'un eh, mm-hmm. mm-hmm. xale bi sax ma sarax ko yóbbu ko parce que instant bi bëgg naa génn dëkk bi dara sax ndeysaan barki Dembo Njaay am na benn xale bu jigéen euh, bi nga xamante ne jinne bi moo boole ko woon kayit bi moom ak doomam liir ba ma génnee jinne bi xaw ma nan euh, jinne Real Madrid jinne ma ne ko génnal ci moom nga indi kayit yi ba mu génnee ci moom mu defal ko visa visa yi mu indi fi ñaari visa yi dégg nga nee na tey tey bu ma ko ne xale bi boo génnee ci moom mu dem France buy génn mu koy mu muy tukki dégg nga ci muy sangu ay garab ñu takkal ko téere yi da ngeen def loo xam ni du mën a takk du mën a tekk téere yi mm. gisoo sànk téere bi ma ko bi ma ko tekkiloo fii nii téere boobu noonu xoolal ñaari kese la daan mën tekki mais beneen bi mënu hmm. ko woon tekki da daan tekk ba sonn sànq lo loxo bi lox na lox na waaye may naa ko doole bi pouvoir ba mu tee ba mu tekki téere bi téere boobu noonu la jëlee woon taata gin si meer siga joon moom ak jëkkëru yaayam bi ñoo àndoon jëkkëru yaayam boobu noonu Ablaye Joon kooku bàjjanam la siga boobu noonu bàjjanam la mais maamam nag dafa fogoon ni xale bi ak yaayam ñoo àndoon dem waaye xale bi ànd woon ak yaayam jëkkëram la jëkkëru yaayam la àndaloon parce que yaayam instant bu dafa feebaroon yaayam instant bu dafa feebaroon yaayam dañ ko sonal mm. de xëy na dina si baax xëy bu ñëwee mu tànn moom tamit day énervé wu rek day saa mm. day énervé bi kan mooy wax ni ñi tey wax wala jinne man jinne maay wax yow jinne yaay wax instant bi nit ñi gisuñu la nit la ñuy gis lan moo tax nit ñi mënuñu la gis. waaw loolu yàlla moo ñu ko may ñun dañ leen di romb nii di jaabante nii seen biir nu ngeen gis dara mën nañ la xool nii xam sa pouvoir xam sa lépp mm-hmm. xam sa bésu dee mm-hmm. xam sa heure dee xam sa lépp ndeysaan mm-hmm. yow ngay dox rek. TMS TV.